Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. te ñun daf ñu jënd jàpp ñu daf ñu jënd jàpp ñu Serigne Béthio comme ñu comme ñu wax nañu mom la Mom la comme ñu waxul nañu du mom. du moom mais 17 avril 17 avril Serigne Béthio kan la yebal mu dem toog fa soxna Aida da yebal mu dem toog fa mais ay doomam bu ñu motoon lu ñu doon Serigne Béthio ñoom lay yebal ñu dem toogi ji ñu dem toogal ko palaasam ndax matul lu mu doon kon bi Serigne Béthio di dund muy def li muy def ñu ci teg bëtam ñun bu ñu wanee ginnaaw loolu noonu la ñuy continuer di ko def ñun ñun duñu wër sëriñ bi ci mukk talaatuñ ko ndax sëriñ bi ci suñu lépp moom la ñun moñu def ni ni ñu ñu mel sëriñ bi ci moñu ko def sëriñ bi ci moñu def ñu nekk ay murid sadiq ñun moñu ko def ñun lépp luñu am rek sëriñ bi ci buñu amé suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm du ko jëfël sëriñ Béthio sëriñ Béthio moo ñu xamal kan mooy sëriñ Saliou sëriñ Béthio moo ñu xamal kan mooy sëriñ Saliou mën a mën a mën a mën a mën a mën a boo gis day dangay toog xaar bañ la yow wax sëñ Saliou gël tàppe toogal xaar bañ la yow wax wax ak gaaruwaale ci jigéen lañ ko waroon a séentu pas góor pas mais yow lan ngay ragal lan ngay taf tafi lan ngay patine lan ngay ragal yéen soxna Aida avant muy simmeeku ngeen ko commencé attaque laa guerre pour lan ndax lan dërëm. ndax xam ngeen ne bokk taalibe dofuñu bokk taalibe dofuñu jënd jàpp leen dofuñu ndax xam nañ ne sëriñ Béthio léppam ginnaawam léppam dakaa defar ndax xam na sëriñ Béthio xam na ay njabootam bu baax a baax a baax sëriñ Béthio nag su leen wanee ginnaaw tey ngeen nekk fi di di di di di di di di di defanteeg suñuy ndey yi tedd yii Serigne Béthio dafee newul te ba fi sëriñ Béthio nekkee ñeme woo leen ko woon ñeme leen jàkkaarlook benn presse di wax ci ci ci ci suñu ndeyi tedd yi ndax Serigne Béthio mayu leen ko woon ndax xam na kan mooy ay doomam sëriñ Béthio xam na leen bu baax a baax a baax soo leen matoon li ngeen doon soo leen ko matoon kon taalibe Serigne Béthio mën nga leen a doon mais taalibe Serigne Béthio mënoo leen a doon ndax lan xaalis ngeen gëm ak kër ay otay rafet belle vie loolu noonu ngeen xam soxna ay da daa jaay njuréem jëndee ko taalibe soxna ay da wëlbatiku jaayaat ñun suñu njureen ñun ñun jëfalee ko Sëriñ Tuuba soxna ay lépp lu ma am jëfal na ko Sëriñ Tuuba lépp lu ma am jëfal na man maa ngi déglu benn vidéo ba nga xam ne am na benn doomu Sëriñ Béthio ma wax sax turam naan. Euh, nag yi nag yi nag yi soxna Ayda di jëf nagu mbalit la <laughs> kon de yàgg ngaa lekk nagu mbalit nagu mbalit ba nga xam ne bañ leen ko joxee ci màggal gi delloowoo leen ko millions yi leen millions yi mbalit yi leen jox ci màggal gi delloowu leen ko teg si fu leen tiimalee micro ngeen wax ci ki ngeen xam ne moo leen sagal ngeen wax ci moom yéen sëriñ yooyu yéen soxna Ayda da leen gën a gore soxna Ayda da leen a gën a gore yéen nag da ngeen a gorewul. ndax yéen soo leen gore woon na ngeen fàttaliku démb soxna Aida fii ku fi yor sa làmmañ di tartari di wax di wax soo leen wéetee rekk ngeen wéetal ngeen wéetoog suñu boroom ci bàmbel di ngeen xam ne soxna ayda def na ci yéen lu mu bon bon defal defal na leen teraanga waaye waa Sénégal dañu xippi seen bët di xool. yéen soo leen matoon palaasu sëriñ bi soo leen ko matoon mat ko mat ko kon mbokk taalibe yépp ci yéen ñooñu noonu lañuy ñëw jébbal mais matoo leen ko parce que ndax lan ñun man de man ak samay moroom a ci yam ñun waa ñun waa kër sëriñ Béthio ñun mësuñu dégg ñun ñu ne doomu sëriñ Béthio moo ñëw ziyaare lii sëriñ Béthio musta am yaa sëriñ Béthio jàppee wala leen ko sëriñ jàppee wu leen ko sëriñ bàyyi ngeen ko jàppee bàyyi bu yëkkati dërëm di leen ko jox yéen mosoo leen yëkkati seen dërëm jox ko sëriñ Béthio sëriñ Béthio mu yëkkati dërëm moom leen jox waaye soxna Aida ndokk ba ko sëriñ Touba defalee mu jël borom këram gi daf ko ab sang di ko jëfal di ko jëfal wu xamal ñu lan mooy jëfal sëriñ tuubaa li ko li ko soxna Aida di wax naan ni moom da di planté ñun de santaat nañ sëriñ Béthio bu wér ndokk ba topp ñu nag sëñ Saliou Gueye Tapé ndokk ba topp ñu ko te ngeen di xool waa Sénégal nañu xuppi seeni bët xool soxna Aida ñu ànd ak moom ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Béthio jàmbaar ya àndoon ak sëriñ Béthio nga xam ne sëriñ Béthio bañ ko tëjee bañ ko bañ ko dugalee kaso ñoom ñoo ko fa fekk est-ce que mës ngeen a dégg ñu ne sëriñ Béthio bañ ko tëjee kaso ay doomam a ko fekk ñoo ko fa fekk. ay doomam musuñu koo fekke sa kaso ba musuñu ko faa fekk ndax lan su mettee dañuy daw bu neexee ñu ñëw njabootam gi nga xam ne mooy ay taalibeem ñoo ko fekkoon sa kaso ba ñoo daan dund ak moom lu neex dund ak moom lu metti ndax lan sëriñ Saaliw may santaa sëriñ Béthio bu wér man de barki sëriñ Saaliw su ma waxulee man duma gor man su ma waxulee man delloo lu ma sëriñ Béthio njukkal man su ma waxulee man duma gor faaw ma wax te tey laay gëj a wax musumaa wax tey laay wax tey laay gëj a wax tax ñun kenn mënuñoo jënd kenn mënuñoo jënd rawatina ki nga xam ne dërëm moo ko tax a jóg liggéey Sëriñ Tuubaa taxu koo jóg di dërëm moo ko tax a jóg dërëm moo ko tax a jóg ki nga xam ne nag moom la liggéeyee Serigne Touba tax a jóg ñun ci ñun ci gannaaw ñun ci gannaaw kooku la ñuy daw bootu ji di ko jox suñuy dërëm di ko jox suñuy ñaar dërëm soxna Aida lu mu def neex nañu lu mu wax neex nañu lu mu wax neex nañu ndax daan toog ak sëriñ Béthio di wax muy neex sëriñ Béthio kon tey bu fi Serigne Béthio jógee mu toog di wax ak ñi di mokk taalibe daf ñuy neex waaye nag waa Sénégal ñoo xamul. dellu damay wax ni jigéen ñi nga xam ne ñoo yore seen làmmiñ di tartari di wax te xamuñu ñoom nañu dem wuti ji seen ngërëmu boroom kër soxna Ayda mi ñuy xas moom soxna Ayda daal liggéey ba làq ngërëmul borom këram ba boroom këram gërëm ko boroom këram dakaa gërëm ba àdduna yépp di seede àdduna yépp di seede ne Sëriñ Béthio gërëm na soxna Ayda man mii de jigéen laa waaye soxna Aida dama koo ñee barkib sëriñ Touba soxna Aida dama koo ñee ñee ko man su ma nekkul woon sax cantaakoon sax barki sëriñ Touba soxna Aida dama koo ñee ndax nga dem ba làq sa sa sa sa ngërëmu borom kër ñi nga xam ne dangay tartali yore seen làmmiñ di wax fexe leen am li soxna Aida am moo gën ngeen wax fexe leen am. li na ayda am moo gën ngeen yore seen làmmiñ di tartari di wax dem leen gëstu ji kan mooy Serigne Béthio ba pare dem leen gëstu ji Serigne Béthio lépp lu mu def dafa am ay seede Serigne Béthio lu mu def dafa am ay seede bañ na ko ba bu daan waxtaan bu mbooloo bi toogee day wax naan na ma télé jël na ma rajo jël te xam ne lii du fi jóge te man dama fiy jóge sëriñ Béthio léppam léppam dafa leer barki sëriñ Touba ay njabootam ñoom ñoo bëgg takkal ginnaawam te mënuñu koo takkal ay njabootam ñoo bëgg takkal ginnaaw du wax sax ay njabootam ay doomam ñoo bëgg takkal ginnaawam te mënuñu koo takkal ñu ànd ak sëñ Saliou sëñ Saliou Gueule Tapée ñoom Serigne Béthio da leen a xotti woon ba ci ay doomam moom sëriñ Béthio da leen a xotti woon ñun ñun ñun ñun ñun ci ñun ci ñun ci cant gi ñun dañuy juddoo yaroo ci lépp lañu xam. ñun tey am na la nga xam ne buñ ko waxee àdduna bi tukki am na la nga xam ne buñ ko waxee fii <laughs> waaye amu solo ñu sëriñ Béthio ñun lañu gëm doyloo ko tey ak ëllëg soxna Aida lañu booleel lañu daan def ci sëriñ Béthio dañ koy mottalee def ci soxna Aida barki sëriñ Touba ndax ña nekkoo nag sëriñ bi Bordeaux ba sëriñ bi def secret bii ba ñu ñëwee. mu ne nañoo dem ci si si si si sëñ Saalu Gueule Tapée mais dañoo dem jubal a gis si ci soxna Aida yéesal seen njébbal ci ñoom ndax lan Serigne Béthio moo leen ko wax Serigne Béthio moo leen ko wax ndax sëriñ Béthio ba mu koy wax dafa jël ay seede waa Sénégal bu leen dof bi leen seeni bët di xool. ndax ñun ñun. ci képpaalu sëriñ Béthio gii lañu nekk te mësuñu fee jóge li fi am ak li fi amul yëpp xam nañ ko ñun dofuñu jënd jàpp ñu ñun nekkuñu ay taalibe sëriñ Béthio rek teg si de dañoo nekk ay njabootub sëriñ Béthio lañu ay njabootub sëriñ ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore seen làmmiñ di wax lu leen wóor lu leen wóorul nañu xalaat seen bàmmeel nañu xalaat ne ëllëg dinañ layoo ak seen borom su fekkee ne soxna Aida lañ bañ. ba di ko waxal la nga xam ne amul ah bisu pénc am na de bisu pénc am na ndax suñu borom nee na su dee man la ak sama mbokk ak sama jaami amul problème waaye jaam yi ak seeni mbokk ak seeni moroom ah waa ku bañ soxna Ayda nag ba nga dem bis pénc soxna Ayda nan la fa yàggal ndax la nga ko waxuloon wax leen loo leen xam wax leen seen tray yu bàmmel wax leen ko man de lu ma xamu ci nit duma ko wax man lu ma xamul ci nit duma ko wax ndax bañ naa ëllëg jàkkaarloo ak yow ñu naan maan kaay la nga waxoon ci diggante ñaan yi ndax sëriñ Béthio dañ ko fi waxal yëpp sëriñ Béthio waxal nañ ko fi lu ne nee nañ kafe gi dafa am lu mu ciy def sëriñ Béthio day dem fële day jër yóoru lii day jër yóoru laa sëriñ beccu dañ ko fi wax yëpp xaaj ba xaajaat ba di sëriñ beccu daj xaaj ba xaajaat ba soxna Aida di ko daj sëriñ beccu nii nii la ko waxee woon nii la ko waxee woon ñëpp toog sëriñ beccu wax ko lii ne ko man sëriñ Sall ba may wax na ma yaay man may yow ñëpp gëmuñu ma woon yow it mënoo muusa ko mucc bari ci loolu ñooy ñaanal sëriñ beccu mu yàgg fi lool ndax sëriñ Béthio jugu fi mooy soxna ayda sëriñ Béthio jugu fi mu ngi suñu biir jugu fi te du fi mësu jug du fi mësu jug moom soxna Aida taalibi sëriñ Béthio yàlla na ëpp ndam fa moom yàlla na ëpp ndam fa moom.